docteur euh, Fatma Guenoune maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeykumba. docteur Fatma Guenoune nga jiite euh, ligue sénégalaise euh, bi xeex wàllum cancer ni ngi ni premier octobre bile si la ñuy lancé campagne octobre rose ñu bëggoon xam octobre rose lan moo ko tax a jóg exactement. octobre rose li ko tax a jóg mooy xeex cancer ween mooy benn weer la bu ñu jëkk jagleel. cancer ween di ci waxtaan ak euh, askan bi euh, lan wax leen lan mooy cancer naka lay ñëwee cancer ween te naka la ñuy def pour aar suñu bopp ci cancer donc euh, mooy campagne bi nga xam ne ne fépp lañ ci waxtaan danañuy def ay caravane def ay dépistage waxtaan ak askan bi loolu dafa am solo donc Ligue sénégalaise contre le cancer mi ngi ko initié en mais campagne bi mi ngi commencé bitim réew ci États-Unis benn euh, jigéen bu amoon cancer bëggoon jàppale ay moromu jigéen ñi nga xam ne ne amuñu woon prise en charge mu commencé di jaay ay ruban pour jàppale euh, jigéen yooyu di faju ci cancer donc mu am benn société de cosmétologie bu jël maladie en charge muy Elena Rubinstein bu ko euh, jël campagne bi di ko def léegi nag mu law ci àddina bi yépp ñun 2019 lañ ci bokk euh, di ko xeex di waxtaan di xamal as jigéen ñi pour parce que li ñu daan gis mooy ne jigéen ñi euh, quatre-vingt pour cent dañu daan ñëw hôpital ba nga xam ne ne lu dul bunge leen ci ñu faatu loolu la ñu bëggul gis euh, campagne octobre rose bi mooy dépistage par la mammographie mm. mooy rajo ween bi nga xam ne ne dina gis tumeur bu tuuti te tumeur bi suñ ko gisee duñu soxla dagg sa ween c'est important ñu waxtaan ak askan bi parce que képp ku ñu wax cancer rek da yaakaar ne da ngay faatu te cancer bi suñ ko teelee gis uh, doo faatu depuis buñ ko commencé ñu ngi sant yàlla uh, yaa uh, am nañu ay survivante du cancer ñi nga xam ne ne amoon nañu cancer wér nañ ci te ñooñu ñu ngi def ay plaidoyer di wax nañ man amoon naa cancer wéer naa ci dafa am importance pour jigéen ñi xam donc euh, maa ngi remercier presse sénégalaise bi parce que yéenay dugg fi nga xam ne ne ñun duñ fa mun a àgg donc euh, di euh, askan bi di leen di déglu ci affaire u ni leen di sensibiliser. léegi octobre rose rose bi lan moo tax ngeen taamu terme bi exactement ak tamit lan moo tax ngeen tànn weeru octobre xam nga weeru octobre dafa campagne bi benn fan doyu ci parce que euh, Sénégal mooy ñaareeli cancer mais ci àddina bi yëpp mooy premier cancer buy laal jigéen donc Sénégal fii suñu premier cancer mooy cancer bu buntu butitu njurkaay deuxième cancer bi mooy cancer bu ween donc rose bi mooy couleuru jigéen la soo jëlee bleu couleuru góor la jigéen mooy féminité mooy wane ne kii jigéen la ñu jël ci campagne bi parce que ci biir campagne bi weer bi lëmm am na benn bés bu ñu ja euh, euh, muy journée mondiale contre le cancer du muy le 19 donc mais il nous benn fan doyul pour wax ak suñu mbokku jigéen yi euh, weer moo ci doy. pour ñu waxtaan ak askan bi dépister le maximum de femmes. voilà Fatma Guenoune docteur lan moo tax ngeen def focus bi ci ci femmes yi ak tamit lan moo tax femmes yi kese te góor ñi bokkuñ ci campagne bi aussi. dam euh, lay wax ni dañ nit yi dañuy yaakaar ne parce que dama doon jigéen moo tax may mm-hmm. may def may def focus euh, ci jigéen yi mais euh, dam lay wax cancer ween soo jëlee téeméer benn rek mooy mooy ci ci mooy dal góor te donc ci suñu communication dinañu wax ne góor ñi dinañu am cancer ween mais bariwuñu ba léegi sax un pour cent boobule au Sénégal c' est zéro virgule zéro zéro pour cent mooy euh, mooy dal góor mais cancer euh, benn cancer dong mooy dal góor muy cancer u prostate te ñoom am nañu weer muy euh, novembre bleu donc te te soo xayma nombre de femmes yi nga xam ne ne ñooy gën a faatu ci cancer ñoo ëpp cancer u góor soo jëlee mille trois cent mooy téeméer Euh, junni ak juróom-benn téeméer ak fukk ak ñaar ñuy gaa ñuy faatu ci canceru euh, buntu bu tunjurukaay juróom euh, ñeenti téeméer ak juróom fukk ak lu topp yuy faatu ci canceru ween soo jëlee ju canceru prostate bi nga xam ne ne huit cent nouveau cas la te mooy juróom-ñetti téeméer te juróomi téeméer ñoo faatu donc am na différence donc lii fii fi ñu gën a am loraange Mm-hmm. foofu la ñuy gën teg suñu loxo te tamit jigéen yi ñooy yaay yi ñooy yar euh, ñoom ñooy taxawal euh, société euh, su te dañu nemmeeku te jigéen yi nga xam ne ne dañuy nekk xaleel di faatu te loolu la ñu bëggatul gis donc faaw ñu wax ak suñu mbokku jigéen yi ñu teel a dem seeti kër docteur pour cancer suñu fekkee ne gis nañu tumeur su tumeur bu ndaw ñu faju ci te bañ ci loru donc loolu moo tax ñu def focus ci jigéen ñi parce que ñi gën a gën a faatu ay jigéen la du góor ñi euh, kon kon bu fekkente ni jigéen ñi cancer u ween moo leen gën a sonal ak col de l'utérus si côté góor ñi ñoom ban façon cancer moo leen gën a sonal surtout fii si Sénégal euh, euh, euh cancer u euh, prostate ak cancer u foie mais cancer u foie bi sax soo ko xoolee ñi ciy gën a loru sax ay euh, ay jigéen la tamit donc euh, euh, Sénégal moom ñiy gën a loru ci yenn feebar yi jigéen lay doon donc foog ñu jàppale askan bi pour jàppale xale yi parce que yaru xale yi toppatoo xale yi jigéen a ko yore ci biir kër donc ñooñu kenn jigéen waratul loru ci yenn feebar yi ci Sénégal léegi euh, docteur Fatma Guenoune euh, ngeen di amal euh, dépistage ci campagne bi mais après dépistage beeg mammographie est-ce que dina am suivi est-ce que da ngeen di jël en charge maladie waaw wala déet. waaw xam nga suñu daan def campagne octobre rose ren bi nag dañu xaw a am jafe-jafeñ mais ñun suñu ne ñëw leen ñu dépister leen ñëw ñu saytu leen suñu gisee ci yéen dañ leen di bunge ci seen diagnostic ak ci seen faj mais ren dina métti sañu boor euh, li ma mun a wax askan bi mooy ne ne képp ku ñëw dépister suñu gisee ci yow dara dinañ la may mammographie gratuitement parce que déjà ñun am nañu au moins euh, euh, quatre cent cinquante dossiers en attente de d'être pris en charge mooy ne Euh, euh, bon euh, xaw ma sax naka lañ koy waxee encore. waaw cent cinquante donc soo amee ay dossiers en attente dossiers yu bees yi doo ko mën jël mais def nañu ay campagne ci via Wave ak Orange Money maa ngi ñaan askan bi xebuñu dara parce que quinze millions de Sénégalais. Euh, ku ci joxit cent franc dinañu mun a jël malade yu cancer yi donc euh, loolu ñaata milliards lay doon euh, donc xeebu ñu dara ku ñu jàppale daal ñu jël pour jàppale ci li ñuy dem pour dépister ay jigéen te suñu gisee ci ñoom ay tumeur ñu mun leen jàppale seen prise en charge surtout ci côté xaalis bi docteur euh, Fatma Guenoune est-ce que am na ñuy euh, jàppale Lisca ci ci campagne bi est-ce que état Sénégal dina leen jox ay koppar pour campagne bi waaw wala déet. non euh, état wu Sénégal du ñu jàppale ci suñu campagne état wu Sénégal daf ñuy jàppale ci suñu fonctionnement. Hmm. campagne bi dañuy bind ay lettres di def demander di ñaan société yi. Euh, ñu jàppale ñu pour le moment benn société moo ñuy jàppale euh, moom la ñu am ak moom li nga xam ne ne wóor na muy ci euh, DP World moo ñuy accompagner te DP World yi su ñuy accompagner ci dernier ceeru octobre bi ñuy doog dañuy génn Dakar dem dépister ci ci côté Popenguine ak Ndayane foofule mais yeneen société yi pour le moment kenn ta euh, feeñagul ah ñu ngi ñaan ñu bind ñëpp ku ci gis euh, lettre kayitu liskaam ñu mun ñu bunge ci euh, ci campagne octobre rose bi Euh, docteur Fatma Guenoune beneen tamit euh, laaj bu am solo lan moo waral euh, jàngoroy cancer faj ko wala soins yi nekk lu cher cher lan moo ko waral exactement xam nga déjà cancer dafa nekk feebar bi nga xam ne ne euh, du Sénégal rek la nekkee feebre à soins coûteux euh, te li ma waxul woon ci nasaraan mooy ne ne xam nga suñu yéexee gis cancer faj bi dafay gën a métti parce que euh, su feebar bi commencé tas ci yaram bi faj bi dafay gën a yàgg te dafay gën a njëg bi dafay gën a jafeñ donc garab yi nga xam ne ne ñooy rey cellule camp euh, kenn defar réew ñoom dañu am sécurité sociale te ñun sañu couverture sanitaire universelle euh, jëlagul maladie wu cancer au Sénégal donc te euh, ñiy liggéey rek surtout ñi am assurance maladie ñoom ñoo am une prise en charge et que ñeneen ñi même fonctionnaires yi ils ont une prise en charge à au au cinquième te en fait ça prend pas les euh, les médicaments donc euh, loolu te njëgu euh, chimio bi dafa jafeñ loolu moo taxoon ñu maa ngi ci profité pour gërëm njiitu réew bi le président Macky parce que en deux mille dix neuf moom moo tax chimiothérapie wu cancer u jigéen yi mu nekk gratuit ñu wàññi njëgu yeneen cancer yi mais ñun li ñu bëgg mooy chimiothérapie wu bépp cancer soit gratuit euh, au Sénégal euh, loolu moo ko waxal nag fajum cancer parce que euh, yenn saa yi am na ay cure yi nga xam ne ne un million lay jar donc te malade yi dañu néew doole ku néew doole nag soo ko nee da ngay def sa chimiothérapie bu chaque cure de vingt et un jours te coûte cinq cent cinquante mille à un million da nga koy jaaxal te xam nañ ne quatre vingt de la population n'ont pas de prise en charge kon euh, dafa jafente euh, foog naa ne euh, ani àdduna bi tëddee dundin bi cher ku am feebar moom daa wéet soo amulee ku la jàppale Euh, docteur Fatma Guenoune ñu laaj la tamit ci tëj bi ñu tëj hôpital la Dantec ñu bari ñoo xam ne dañu amoon cancer foofu lañ doon fajoo euh, tey ji situation bi naka la demee après bi ñu tëjee Dantec ak malaat yi am euh, cancer est-ce que faju bi yomb na ba léegi wala yombatul naka la demee la situation actuelle loolu moom njaaxare la indi dëgg la ne hôpital boobule dañ ko waroon a tëj parce que dafa màgget Euh, ñun ligue sénégalaise liñ fa defar ci euh, institut du cancer pour defaraat ko ba nga xam ne ne malade yi mun fa faju ci jàmm malheureusement biñ ko defaree mille 2016 ba léegi lañ ko defar heureusement ko liñ ci def tamit rëcc wuñ ko mais malade yi fu mu nekk ni dañu nekk ci njaax rek parce que soo pare woon sa chimiothérapie ñu war la opérer xamoo fan ngay dem ñu op programmer la pour opérer parce que mala euh, docteur yi nekkoon biir Curie euh, ba léegi jot ñu seen lettre d'affectation wax nañ ne daa leen dem mais suñ la nee da ngay dem te jotoo sa lettre affectation kon da loolu problème lay doon ba pare malade yi nga xam ne ne war a def sa chimiothérapie nga commencé ñu jël euh, fa ñu doon fajee ne dañ koy dañ koy toxal te ba léegi toxaluñ ko te radiothérapie bi bi tamit ah euh, bu daan euh, bu dalal jàmm munul dékku malade yëpp donc yooyu la ay euh, ja ñun toujours malade yi dañuy ñëw di joy ci ñun hmm. donc yooyu la ay problème la donc foog ñu gëstuwaat xool gën xool naka la ñuy orienté chimiothérapie bi benn béréb bi nga xam ne ne malade yi ñu wër wër laan xool fan lañ leen di opérer xool naka la ñuy def Euh, pour def radiothérapie parce que tamit am na hôpitalu dal euh, Touba ubbi na wante malade yëpp euh, ñu demee Touba fan la ñuy dal loolu foog ñu xalaat ko rapidement xool parce que kuy def radiothérapie bés bu nekk ngay dem def sa radiothérapie du lundi au vendredi te fii hôpital bi nekk foofu amul dalukaay donc beneen njaaxare dina am dem ba Touba pour commencer faj te amoo fi nga dal métti donc euh, ñu xool naka la ñuy jàpp euh, def maison de vie rapidement pour euh, malade mun fa nekk le temps que ñu faj leen ci euh, cancer voilà docteur Fatma Guenoune xam naa fi ñuy tàggatoo dama lay bàyyi euh, nga lancé appel jigéen ñi surtout ci campagne octobre rose bi nga xam ni euh, tàmbali ngeen ko peut-être am na benn message de sensibilisation boo bëgg a lancé surtout jigéen ñi. waaw déjà sama mbokku jigéen ñi dama leen di wax ne ne xës ba am ñeent fukki at ñeent fukki at ba euh, juróom eh, ñaar fukk ak ñeent war nga mun a def mammographie. Euh, ñaari at yu ne donc euh, te ku bëgg a def sa mammographie euh, nga ñëw lig ba jël sa bon bu rose nga dem ci radiologue bi la neex bi nga xam ne ne ñoom ñooy partenaire u ligue sénégalaise contre le cancer nga dem fay fa sa quinze mille au niveau de la LISCA kenn du fa fay dërëm ba pare ku bëgg a seet ñu ko ñu seet la da ngay woote ci numéro bi soixante dix huit cent vingt quatre quarante quarante wala cinquante deux cinquante 52 ku ko euh, euh, ku ci woote dinañ la euh, di ñu jox la rendez nga ñëw dinañu seet téeméeri jigéen par jour mais li may ñaan ku ñëw tamit dinañ la jàngal naka ngay làmbatu ween parce que làmbatu ween bi lii tubaab di wax autopalpation am na solo jigéen bu nekk saa yoo gisee sa régle ba pare Euh, war nga mun a làmbatu sa weet pour xool ndax amuloo donj walla déet euh, loolu lay jigéen ñi nga xam ne ne ñu ci euh, li ñuy wax en activité génitale ñi nga xam ne ne dañu ménopausé dañu jël benn bés ci weer bi def seen auto palpation des seins loolu tamit dina tax ne ñu gis ay kii yu bari ay nodules de petite taille. docteur Fatma Guenoune Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. docteur euh, Fatma Guenoune may fàttali yow yaay présidente bu ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. merci beaucoup Rewmi FM.